ak liru jaan surtout ngénte liru jaan bi ak liru jaan lim la fi yak yëpp yow ngay dem Sénégal yëpp naqarlu nañ ko lan nga fa doon def. Sénégal ko naqarlu. ah naqarlu la parce que contane kontaan ci mbay. Ah, parce que yow gis nga mbay. hmm lu rafet meunta passé lu rafet. Mhm. dafa mel dang ko ragal quoi. non dafa mel ma hmm khadim jaay kon mbay ah ah tu peur personne. Mhm. man dama nit ñi sax dañ koy photocopie ci man. kamay ragal ragal naa ko ba pare. Mhm. amul beneen mbindeef buy doon doomu adama ma lay ragal ci kaw suuf. ah lan moo tax kenn laa ragal muy yàlla te ragal naa ko ba pare mais c'est parce que. Ah. ay nit yu mhm. baax. Mhm. yu am valeur ku mel ni moo Ndiaye. Ouma day yëkkati teraangam di ma ko defal. ne ma xaarim damaa bëgg nga dem ci ngéntele mm. ngir sama jëmm ma teewal ko fa teewal fa Pape Fall teewal fa Kéba mm. teewal fa sama xarit yu baax yooyu mm-hmm. xam nga mm-hmm. loolu rek tax ma dem te lu rafet lu rafet la mais mm-hmm. terewul game bi day commencé maag moom ah oh, nan lay commencé yow nga soxla xam nga kon kon danga kon xanaa yow ah. mbay xanaa kon Balla Gaye dée mi dem ci xew yaayu booy ñaa booy ñaa kon war foo na dem jóge màkk gi ah. mbay loolu loolu waxuñu ko xam nga lan la ñuy wax ki yori veeram taxaw ci dëkk bi di saaga nday jàmbur yi di wane réewande di wane bandi. te du bandi. na ko teg ci suuf xam nga ko yaa ko jël ci sa téléphone. mais ba muy saaga nag. Ah. waroon naa jëmale tudd tudd ko muy saaga mu xam ne kon lépp dëgg la. kàlla ko defee woon laa naroon nga jëlee ma émission ñu defee ko fa ma ak moom ma ak yow mu woon ko ni. Mhm. li muy day dugg ci gem sax mais gemul moom. mais yow yow mais nañ xale bu nekk ci yoonam rek. fii Sénégal ku fi tekki rek. Mhm. bëgg a dàmm say tànk. mais kii kenn du dami tànkam de Wally Seck mii. Mhm. kenn du dami ah, tànkam yaa tudd turam. <laughs> Ah, yow ah, yow kay kon kon yow kay moo tax turam kooku xam kooku yaa ngi maa ngi dégg. mais li mu wax dama lay wax dama lay wax. Ah. xam nga man am na déglu ma am na ñoo xamante ni. Uh-huh. sama làmmiñ moo seexlu di leen tudd ndax du ñitu dara. Uh-huh. tekkiwuñu dara. Uh-huh. yow mbay mën na maa man mën na maa nekk ak yow mbay. di la teral. di la jëndal oto. dem loolu ma arrêté ko rek nga commencé maa saaga. ah mais nañ bàyyi affaire hypocrisie yooyu quoi. xam nga. Mhm. nañ bàyyi affaire hypocrite Wally sama doom la mhm. bàyyam ñëw na fii sama kër mhm. Thione Seck benn invitation la ma sa nangu ci làmb te man la ko njëkk a nangul fii ci terre Oris yéeg naa pour ñu mu Thione Seck laa mës a yéeg ci kaw chaîne musicien di way ñu seq ay couleur yu nice yàlla boole ma moom xam nga li may naqaru rek li mu teel a dem guddee gi rek laay jooy yàlla na ko yàlla xare àjjana muy muy ku mel ni Papa Thione Seck ku mel ni tey Kamal Seleme ku mel ni tey sama am di jàmm yi sama ménagère yi. Mhm. nga ñooñu ñëpp. Mhm. maa ngi leen di ñaanal ci bisu mhm. tey bi xam nga yàlla yow yow Wally Seck mi ngay woote yow yow tey Alioune Seck tey lay marié lan moo tax demoo kon xam nga joxlu joxuñu la fa cër. su la fa joxoon sa seytaane gi. non non dañ laa joxul cër. kër ma kër Thione Seck damaa xaarul ñu ma ci woo ci dara. waaw lan moo tax demoo man seen bàyyi nga li la te seen bàyyi googu xala soxla ma sax man seen bàyyi googu maag seen collègue ga ma seqoon ak seen bàyyi ah. seen bàyyi nekkatu fi man moom laay doxal Aliou Seck Mouhamed Seck. ba ci moom yi ñoom ñëpp. may seen maay seen waajur. non ban waajur boo boo xamante nii nii waxuñu la sax. takk jabar weesagul di weesagul tey takk jabar weesagul di. ah mais tey tey dama am occupation yu yu doy waar dama am tey ñaari boo yu war a bëri. ak suba yëpp. Mm. ci écrit caaro yi. waaw mais waxuñu la ko waxuñu la ko déglu ma rek wax nañu la ko ñoom ñëpp seen i téléphone ngi. waaw waxuñu la ko wala waxuñu la ko vocal yi laa mujjee liir bi ma duggee léegi bi ma ko waxee. laa xool Mouhamed Seck mu envoyé ma vocal. waay waaw envoyé wu la ko waay perte. waaw bu la neexee nga wax loo neex mais waa Kër Thione Seck waaw wax ma loolu de. Mm-hmm. Wally Seck. Mm-hmm. amul ak benn musique Sénégal kii Sénégal ci benn musique musuma toog dégg Wally Seck di wax ci yow lu ñaaw nañu waxante dëgg rek Mbaye ah. non non waxuñu yooyu de dama ne Wally ku baax la. waaw yow mi yow yow yow waroo sax jël yow nit muy taxaw di dégg ay sac di jëm ci waali nga diko jël yow non non mais mais mais non dañ waxante rek da ngay liggéey ah, mais ay waxi dof ay waxi dof waroo koo dugal mais kan mo la wax waxu dof la parce que xol dafa tang nit ku mandi di yambam lok ay pion def lu ko neex di genn di ñak di ci yow bandi la te du gis nga la gis nga la li xarmi lek lekk bay bay yu lek bay cëppi cëppi mom mhm. la xarmi lek na nem mhm. barki serigne fallu mbacke bay dama bëgg ñu xam lolu dama bëgg ñu xam lolu loolu ah, mbay mhm. gis nga affaire affaire satan yi affaire c'est affaire gis nga kooku. bis bu ñu yaakaar yàlla dafay ñu jàkkaarloo moom moom. bon kooku dafa doon jéego doon jéego dafa garaaw de da ngaa bañ a dugg si moom. yow Mbaye nag kon laajte ma bañ naa ko man émission du ma ko defee sama biir kër ci mbedd mi laa koy defee. ndax caaro yi ñëpp a ma xam. di nuyu population caaro yi yëpp. gis nga Mbaye. gis nga Mbaye. wax seytaane waxul dëgg mais yàq na ma xel. gis nga kii. day gis nga yi muy def nii Mbaye ma wax la leen ne. Ah. Sidi Diop Sidi Diop. Wali mhm. mhm. vous êtes des frères. mais bon frère la que non il faut am ku Yalla jital. Yalla jital? xam nga. Yalla la jital. Tay bu ñu wax ci mhm. roi bi neex force roi mais mais roi bi. Wali Sek nak ci way. mom la fi gisuma ci rew mi. ku fi Yalla jital kenen ku dul Wali Sek Wali Sek nak ko def. mu noppal len. Fi ngeen ko deful Wally tabe na. yiiw na baax na. yow waaye lan la defal. kan ci yow doo ko mën a xam. lan la defal ah waaye lu Wally. joxu la oto soxloo ma ci. waaye joxu la dara joxu ko ci ah. moom man bëri na ñu wëri ñu war a defal oto man séntuwuma loolu ci nit. gis nga ay ambam boo ko dee séntu ci nit. Ah, doo ko jàpp. man Wally dama ko jàpp ngir baayam. ak yaayam jaaga jee ni ma def. fi ma teg.

may jël si sama xar ci papa coon ñoom waali ci coon sekk oo leen di leen jox xar xam nga xam ne loolu diggante boobu mhm. lu yàgg la mhm. xam nga tey bu demee ba kooku génn àdduna bàyyi fi lu rafet muy waa coon gore ba dee bàyyi lépp bàyyi def def fi lu ne nag waaye wu ne mu woy ko fi xanaa xamoon ni waali sax waxuma mën a waayam gi sax mais su toppaatoon ay woy papaam di ko way sax ñëpp dañ koy déglu mhm. loolu yàllaa ko def xam nga te bàyyi woyal nu ko lépp avant muy dem balaa nga xam li sa bàyyi daan daj nga dund nga dund ba màgg fekke mm-hmm. añ reer ndekki màbb ci sa kaw mm-hmm. tey coon waali looluy taw ko mi ngi koy def mm-hmm. waali ci xari tabaski li muy def ci xari tabaski bay bul soxor dem nga fa nag bàyyi sa affaire u yi mbay <laughs> dem nga këram gis nga li muy def ban moo ko fi def ay eh, musiciens yi def nañ waxo waxo mais def nañ waxo da nga koy wax waxo mbay fii lu ne fàng kenn du ko jeex mbay bay nañ bàyyi soxor te bàyyi iñaan mbay tout récemment man dama toog dama toog sama kër Waly sek année damay toog sama kër bisu ngoone moo may woo dama mhm. sa doom ne ko kon nee na nga ñëw jël sa mbay gis bii passé mhm. kon kooku te noonu koy defee man defal na ko ay mbokkam defal ko ñeneen defal ko ay moromu musicien xam mhm. xam nga lan xam ñu xam non kooku waxam bay bu tudd fii dama lay dóor de barki sëñ Tuubaa Mbàkke dama lay dóor <laughs> ah, barki sëñ Fallu Mbàkke dama lay billahi dama lay dóor barki sëñ Fallu Mbàkke boo fi tuddee am na yenn ni waxi nit ñoo ni nit ñoo xamante ni dañuy jaxase duñu ay nit duñu ay nit duñu nit ñu baax. mais dani taxaw di taxaw billahi wallahi loolu bu taxoon sama kanam bu ko waxee ma ñuus. Mm-hmm. mais mais mais dama ne bu tudd turam. taxaw déedéet mooy tudd turam dama ne wuy ma Wally Seck wuy ma Wally Seck nañu waxante dëgg. bi muy uh-huh. génne kese 2009. Uh-huh. waaw. Siri boobu mi ngi aw caat sekk ci ci ci jàkkaarloo yi. waaw. mais mais mais mais mais yokkute la yokkute macha allah ñun ñun ñu Ibrahima sax wala dañoo bett bi muy génne. waaw yokkute la boo juddoo bi mu koy génne. man dama toog tàllool fajir gis ko dama tiit. man waa mais xam nga. waale ci football lañ ko doon séentoo. Mhm. mu jékki-jékki génn fii ak flambeau bi. Mhm. ba léegi muy muy teral sama doom la. taxawal ma wax la contexte ban la doon jéego doon wax dani. non saaga yi muy saaga waaw mais mais mais dafa tàng dafa tàngoon parce que. xoolal moo tàngoon ñu ko gën a tàng fi ne rek. bu tàngee mais yow tàngoo xam nga ñu ko gën a ah mbay kon xamoo xaadim. Ah. mbay ah, ah. demal nga duggaat ci arène bi nga laaj ci kan mooy xaadim wala nga tapp YouTube kan mooy xaadim Ndiaye. c'est moi le king. on est qui on ne déshonore pas. mais xam nga barke Serigne Fallou Mbaye Mbaye dama bëgg nga xam kan mooy xaadim kan ngay waxal gaynde ngay waxal nii. laajal fii mbër yi. mais léegi léegi. ñi fi gën a tàngoon ay gauche droite laa leen dóor ñu arrêté. ba léegi dellu si waatuñu mais may dama bëgg nga xam. Uh-huh. dama def jaar-jaar ci làmb ji avant loolu dama def ah, dama nekk ci mbedd mi am lu ma fi def. Uh-huh. mais li nga fi def lu ne fi def lu dafay am esprit de dépassement day am ay bandi bandi yooyu amul sens. Uh-huh. nit da ngay mel ni Wally Seck am bëlër. mën sa liggéey di ci teral ay doomu aadama. Wally Seck bu Ndeye Ndiaye Banaya ñëwee ci keneen ku dul Ndeye Banaya dina ñëw ci moom barki sëñ Fallou. mais mais mais xam la moo doon rafet nee na dafa waroon jàpp si loxoom leen. yéen ñaar eh, fii transiment fu ne lay am ci làmb jeeg da ngay gis mbër mu nekk ci écurie écurie ba defal ko lépp mu jógee fa dem beneen écurie uh-huh. dañu waxante dëgg mais Sidi Diop rek waaw dañu waxante dëgg rek uh-huh. uh-huh. taxaw di saaga loolu kenn dafa rafetluwul loolu xam nga li la nit ku nekk am nga droit jóge fu la neex dem fu la neex da nga fàtte xanaa. jibi mbay jibi mbay jibi mbay jibi mbay jaarul ci tur yi de. Ah, yaa ko jël barki Serigne Fallou Mbacke jaarul ci tur yi. ah si tur la jaaree bu jaarul ci tur yi na dellu nugu na dellu jaaraat ci tur yi. lan moo tax barki Serigne Fallou Mbacke na jaaraat ci tur yi. Ah, day réew sax mais dama ne la bul fàtte jibi mbay fu mu nekkoon ci Youssou Ndour. Mm. waaw suñu xarit bi gaañu musicien boobu nekkoon encore ci Youssou Ndour. Abi Faye Abi Faye ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm muy sama xarit. Mm-hmm. bi Youssou Ndour demee ministre bi nekk ministre wayatul ñoom demuñu woon ci waale. Mhm. ah xanaa weddi fekke doona doona amul de. Mm, waaw Sidi Diop woy na woy bu dee. dama waxuma loolu bay saytaane nga. yéenay nangu samay nit. waaw lu ne wax na xam nga waali moom du gaaru waale kenn. ah gaaru waale moom du gaaru waale waali mosu ko dégg muy gaaru waale xam nga. Ah. waali moo am ba am ancien gloire waali yee. Mhm. ancien gloire waali yee waali lépp la am. fara lépp lépp ngi ci <laughs> loo ma tuddee ci waale rek nangu naa xamul tax <laughs> uh-huh. damay xool dégagé yi booy bi valeur yi muy dégagé uh-huh. ak comportement yi muy dégagé uh-huh. ak col gi muy col ci biir seen ak oto yi muy indi di ko dawal xam nga mais nañ waxante dëgg ak lu baax li muy def buntu këram nga xam ni ay ay dëkkandoom sax dañ dañuy dem di ko porte plainte di ñëw tey xam nga dama bëgg yow mbay mbay dama bëgg lu ne fàng kenn du ko jeex barke Serigne Fallou Mbacké ak ak 18 safar bii wali ay ay ndamam sax dess na mhm. barki Serigne Fallou mbacke ay ndamam mhm. dess na di nuyu jaga di wax ni yàlla na dundou mais mais cent ans yu commencé tay xewi bi man laa xom lan motax dem xew be ngay toj bay xewi wessakut man na man nga fee djigu bu la nexe nga djé setan nga ngay jaxase ndax ñe samay dom lañ waxuñu la ko waa kër Faramare samay dom lañ mais waxuñu la ko ñom ñëpp ña fa nekk samay dom lañ jaga oro ma rek jaga oro ah. sama dom la mais teguñu la fenn suñu la fa tegoo papis sama dom la Omaro sama doom la Mbaye si Ndiaye sama doom la ah xam nga nga ñëwati nag ci ñam Baye Sall ñëpp samay doom lañ samay doom lañ yàlla moo ma boole ak ñoom du ay way du ay lii seen baay la moo ko liggéey sama digganteek ñoom soxla ma ñu may yëgal ay xew xew yi yëg naa ko bu yàgg mbay bu la neexee na a jor ros ak seytaane ak sa rambaaj ak say fumiste ah. yow li ngay def ni affaire seytaane la man Wally sama doom la sama xarit la chef dama fier ci moom ndax tey mënoon naa nekk ci ñu koy dégg ci yu ñàkk fayda wala ñu di ko dégg ci leneen naan ay lóbeeg hmm. eh, ñu ay lóbeeg ah, ay yu ma xamul ah, kii sekk muy wax naan moo moo moo jële kii xaw ma fan moo jële tas tànja xaw ma leer ah, ma xam xanaa kon xanaa moom amaroo ko jële des TV amaroo <laughs> eh, ngan ne maa ngoog de kenn du laa moom ñaari kuy duñ naan ci mbalka de amaroo ko jële fooy dàq ko waxat ay omoro waay omoro Omaro yaa ba yaa baax. mais nee nañ kii de mi ngi. liggéey xam nga nañu waxante rek musiciens yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay comme bëri mën na ñoo daje ci làmb ja reyante après day jeex. Ah. mais genre yi. Mm. ñooy diviser pour régner ci wàllu la nekkoon di ko xalamal. Mm. saaga fi Omaro sax. Mm-hmm. bi Omaro nekkee fee na ko fi ngir ngir Wally Seck nañu waxante dëgg. Mm-hmm. tey nga ñëw taxaw naan ay waa maa ko waroon naa tudd tur bu tuddoon tur ma noq ko ba mu dóor. i barki Serigne Fallou Mbacke bu tuddoon tur ma ñuus ko. doon jéem a may waxal de. bu tuddoon tur ma ñuus yow yaay tudd turam man kooku sama wàllam yi seexlu naa tudd turam gis nga fii lu fi nit di jaay rek nit mënees na koo jënd dañu bëgg réew mi dal nekk ci jàmm ku ci nekk liggéey saw yoon ña nga mën a dimbale nga dimbale leen te yàlla tax te waali ci gem boobu la ne waam nekkul ci gemu ay waali yii sax du ko seetaan moom mooy wax mais yaakaar na ni ñee duñ ko seetaan sax ah coow li bëri lu mu bëri bëri day fay uh-huh. mbay uh-huh. coow lu mu bëri bëri day fay yow mbay xam nga ne yaa gën xam ni uh-huh. ah pom du new yow yaa ko gën a xam dañu waxante dëgg rek. ayca <laughs> ah. ñu ñu ñu foofu dem ci wàllum làmb ah, ah, père dégg naa jaloor yi nga def si làmb trop dégg naa Eumeu Sène da nga ko dóor gauche droite mu daw ah dóor kii mu daw dóor ñëpp mu daw mais wàllu wàllu wàllum koom-koom koom-koom bi lan moo tax teguñ solo loxo. Mbaye maa ngi sant yàlla. Mbaye yaa seytaane maa ngi sant yàlla. <laughs> ah dégg naa xam koom-koom bi demeewul noonu. ana ñu ci biir suuf. dama leen a gën. tey maa ngi nii yaa ngi ma fekk sama wér. Mm-hmm. bi nga ma bi nga ma xoolee. Mm-hmm. bi ma xoolee da ma yaa ngi bi ma xoolee da maa yërëm. non non yaa maa ngi entraîné di ànd ak samay rek di liggéey di def li ma war a def. Mm-hmm. malgré que nag sama contrat yëpp dagg nañ ko. ndax ci coow Sonko bi si jaaroon ak diggante mbër yi. mais kenn du ma xool di ma yërëm. barki Serigne Fallou Mbacké. ndax taalibe Serigne Touba laa boo xamante ni damaa gëm yàlla gëm yonant bi ba paré gëmat yalla ba paré wolu ko wóolu Serigne tu. bëgg Serigne mais lan motax kom kom bi xoolal xoolal gaay mbeur yi sen sen so démé dañuy ki dal auto yu rafet. di ki di nek ci ay étage di ki xam nga. gën ci koñ xam nga man nak dem fenen, dama bokkul ak ñom man mën ta dor ah kon mbeur ke dañuy dor ah ta dor suma ne kon dor kat mhm. ñaari auto day gaari fi wala ñatt mais dama dul kat mhm. man luma yalla indi rek loolu laay jàpp. Mhm. te mosoo ma gis fenn ma taxaw naan dimbalé len ma ci auto te magal gaa ni jup ci may bay mhm. lan motax ñu dag contrat non affaire mbeuri fi jaaroon digënté mbeuri demoon ci président ma génn wax ah lan motax ñima ñima sékkaloon contrat yi jam ñaaju mhm. ay politiciens lañ té Macky lañ àndaloon bima ma di wax ci affaire yoy ah. di ñaanal Sonko xëy lool loolu dérangé na li pour ñom ñu bëgg Macky Sall gën leena jox contrat gën leena jox ay business ay liggéey mhm. ñu xol lool arrangé ma ñoom yaakaar buñ ko daggé Macky da leena jox ah. ñu dagg samay contrat mais Père lan motax nga gis ko xamante fo foo mi ngi dox ngay bayyi fu dul dox man yalla la gëm dëgg la fi nekkal dëgg mais dëgg ba ba sa koom-koom sa sa sa foo du du ah, tegu mais bis bis damay bis damay layoo nday jor damay layoo sama nday jor kan moo fekk samay jëf rek nekk di fenal nit ba xëy génn àdduna ka may fenal ndax moom may fekk foofu di ma texeel kon ñeen nga xalaat ñooy fenal nit bëri na fii ñan la bëri na fii ñan la bëri na ñuy taxaw di saaga ay nit nekkoon ci nit ba ci yàgg nekkoon ci waale ba ci yàgg jóge fa dem ci keneen di waxaat mm-hmm. yow fa nga dem sax waruñu laa wóolu ndax xam ne boo fa jógaatee noonu ngay defaat rek mm-hmm. kenn xamul nitug lan nga <laughs> kenn xamul nitug lan nga te te loo mën a wax nit rek nit mën nañoo taxaw wax lu lu ko ëpp kooku dama ko xam 100 pour cent. Mhm. kooku xam nga kuy papaam. dafa mhm. <laughs> xarit la papaam. xamoo ko <laughs> mhm. moo tax wax lu baax ci ci nit. ak am solo. wax lu bon. ndax koo fi yor fotoom mi ngi sa album. mais rek la dégg naa dañ koy jox euh, euh, euh, ki Bombardier. waaw Bombardier jël na ko. père loo laa ay bo Bombardier loxo yu diis la de. waaw mais gis nga Reug Reug barki dem li mu def. bon loolu ay ñooñu ay tubaab lañ te fii ay sénégalais lañ. ñu ngi la fi def ba Sa Thiès kii ko. waaw xam nga bu ñu def professionnel ci tubaab la fekk baax. non non ci côté boxe ci lépp. non non ah dañuy waxtaan rek xam nga tey boo gisee champion bi mu daan nga xam ne mësta daanu mhm. kenn ñemewu ko woon ñoom bombardier ñi nekkoon ci MMA bi yëpp kenn mësu ko ñeme mhm. kenn mësul ñeme waa jooju mhm. Reug Reug jël ko gis nga ni mu éliminé waa ji yàlla def mu ñëw bërki dem ci jàmm ñu di ko ñaanal ñëw na ci jàmm indiwul blessure indiwul dara ñaanal ko nag ñu jóge ci combat bombardier bombardier daal dañ koy ñaan bu arbitre ne fër moom taxaw def comme ni defoon ci tafatin ñu laal ko mën a daa damm léegi nan nga nan lan ngay yan ci yan révélation nga may jox si combat boobu. combat bi li ma la ciy jox mooy ñaan yàlla. ñu mhm. dugg ceeg bisimilah rahmaani génn ceeg alhamdulilah rabil alamin mhm. te yàlla may ñu ci ndax mais su ngeen daanoo ñaanuñu ko yàlla mbay yàlla bu sëggeem ñu am barke ñaanuñu ci yàlla di am ndam di am defet xam nga lu tax. Mhm. suñu naw la la c'est un boy bi garaam la. Bombardier def na lu def bëri na feeg ñaari daa moo daan muutloo moo daan Eumeu seen moo daan Modou moo daan Balla Gaye. tey Bombardier tey yàlla def na mu màgg. xam nga dem ba war a bëreeg moom. Mm-hmm. ñun xam nañ Bombardier bu baax. Mm-hmm. ndax suñu génération mm-hmm. kon tey li ñuy indee suñu booy ñun xam nañ ko. li ñu koy ñaan rek mooy Bombardier yàlla na nga indi forme mais dañu bañ rek nga ñëw ba làmb ji ñu ne nga ne da ngaa dem. mais dégg naa nag bàyyi ma euh, kii euh, sa mbër bi léegi dafa commencé yëg boppam. yaa ngi koy wax de ci commentaire yi. kon ci Reug Reug dafa commencé yëg boppam commencé beew di waxee doole di kii yooyu yooyu yooyu doo ko ko tere. no nit ñi ñooy wax rek. sérieusement booy bi. ñëpp la jox cër. bi mu gis nga remercier na waa Thiaroye remercier ay fansam. jox ñëpp cër. ku war a jox cër rek jox na la cër. mais il faut que ñu xam ni rek xale la du mag. rek xale bu ndaw la. xale bu ndaw la juddoogul xam nga xale bu ndaw la xam nga. xale bu ndaw la xam nga xale rek bu sa deret di tàng mais yooyu yëpp xam na nañu waxu fi lu waxu mosu fas taxaw di saaga wala muy wax lu ñaaw xale la toll na ci buntu addunaam na ko nit ñi ñaanal rek mu egg ni yoon quoi bu ko ji bul jël engagement yi de comme comme comme comme fee de defoon nga fi xaj xaw ma dinaa lekk xaj affaire gars yi naan ñoom këcëb ak ñoom ñoom naan wow wow mm. bul jël engagement nag xam nga mbay mm-hmm. il faut que ma fàttali ko nit ñi mm-hmm. lamb jooju dama ko jaay cent pour cent mm-hmm. ci lamb Reug Reug nga mës gis ñu jë wax billet yi nangam la dix jours dix jours avant avant combat promoteur bi yokk ne bàyyi naa bi loolu doon jaay billet naa ko yokkaat naa billet yi te ñëpp a jeex jeex

yaa moom waaw léegi nag promoteur bu ci tëgg ci Pape Abdou Fall. Mm-hmm. léegi ëpp sax li muy am ba ci mm-hmm. petit. Mm-hmm. barki bi muy tëgg. man maa ñëw taxaw ci porte bi. ak samay élément ñu taxaw di contrôler billet yi. di xool ñan ñooy dagg billet te ku jël Xaadim Njaay sarak rek sax bu bëgg duggu sa rudu man liggéey bi sel te wuur la mais taxaw ci porte yi di di ñaan ak dag bi dépassé naa foofu seytaane yi seytane koy wax ak yàqkatu der yi moy yéefar yi rek ñi xamanteni tek wuñu gat duñu ay duñu nit ñu bax ñoy taxaw di wax mi ngi melni sama doom ji gis ngeen ko wali mom wali mom yalla ko sangal bopam wali mom la waral aji la wali mom yalla ko waral jël auto wala mu la kër gi jërëjëf del wax lo neex rek kër gi mo wala ñu ko mom kër gi war nañ koo toj kër gi war nañ koo toj dafa ànd ko. <laughs> gis nga man Mbaye Mbaye ji xamal la neex. <laughs> ah Waly. ah, ah Waly tamit ah ah ah. Ah, ah, ah. waa koñ baa sax xam nga bay xam nga bay nga bay fii kër ak Serigne Touba la ki meññi kër gi muy sama baay ma nga ca Touba nelaw ñum jur ñëpp waa kër Serigne Touba leen tudde moo tax ñun fierté la kër gi nii mu mel fierté la ci man xamul tax kër koñ bi ñu rek ñoo fi nekkoon ay barak sama ñax rek moo def nii kër gi tey barki Serigne Fallou Mbacke sama ñaq ak sama doole ji te loolu jeexagul ba léegi sama doole joo jeexagul ba léegi te àdduna fas course la mhm. tant que yaa ngi dund di am wér dara jomb la mhm. mën nga fee ñëwaat kër gi doon étage mhm. loolu ci coobare yàlla la ne ak Serigne Touba Mbacke mi ma yaakaar xam nga mais li ma gën a bañ du ma tàllal laamee kenn waali sama doom la damay ñaan sax yàlla di gën a yokk succès te waali tey melal na ci population Sénégal boo xam te kuy ngénte am sa doom di ngénte tuddee ko sa yaay maa ngi ñaan jaaga doom ji yàlla nga dem ba di ko muur muy sëy yàlla nga dund cent onze ans commencé tey ba pare ba pare déglu ma rek ba pare. Mhm. Wally nekk nit ku joxe respect joxe cër. Ah. li muy du tontu mukk ak li ko nit ñuy wax ci lu ñaaw mukk. am na ku génn borom fus moustache golo yooyu taxaw naan ay lóbeeg ay nangam Wally ñun dañ ko jege xam baayam xam ko. xam nga ku bon du jël Mouhamed di ko tuddee sa doom ne tey su ma amoon doom ay doom yëpp Mouhamed laa leen tudde yaa ko dégg yow. Mhm. xam nga jël sa yaay tudde ko doom ba pare yëkkati juróom million jox mën na ku mën a def nit ñaa ngi tudd seeni doom ci hôpital ya ci clinique ya ñeenti nit dafay daje juróomi nit Waly Dane bu sañoon fans yëpp dañuy ñëw teew Waly dafa bëgg ay fansam fansam bëgg ko mais ay papam papa ay papam da ñëwuñu sayta ay waa ji saytaane nga saytaane nga papaam yëpp ñëw nañ kenn manqué wul ñëpp yëg nañ ñii dañ ñii dañoo voyagé mm. ñii dañoo nekkoon ci yeneen liggéey yow gis nga may mm. yow dina nga tas famille famille ab famille gis nga ñooñu Kéba muy ma Kéba muy ma Penda Seck ma Penda Seck colère gi ma seq ak coon bu doon voyagé ko 4-4 bi xam nga kan la koy jox. auto ma mbay mbay dama bëgg mbay ma pande seq bu doon voyagé auto bi caabeem yëpp sama loxo la koy tek biko wali may. 4-4 biko wali may heure bu doon voyagé aéroport sama loxo la koy tek ci auto bi mako yor ba keroog muy dellu kon nga xam ne ñooñu famille lañu yalla leen bolé xam nga. Euh, soow la ak sugar xoyal naan rek wala xoyal tuur ken mënu ci dara. waaw euh, ñu ñu ko ci ci ana Baye Mandione di nga ko doon wax su ant né amul entraînement day daanu tay mu daanu. waaw yàlla mooy dogal. Hmm. yàlla mooy dogal dafa mel ne ko yéenewul. non astafurlah mbay. Hmm. astafurlah gis nga mbay. Hmm. sport la. il faut que ñaari dugub benn ay génn. Euh, di féliciter bébé Diène. di encourager Baye Mandione. di xam ni dara weesut. dafa mel ne amul amul doole de amul doole dara weesut ndax jël àdduna àdduna. bébé Diène dina jeexal caaro yi de. nu mu fiy jeexalee caaro yi da koy waaye. nan la koy jeexalee. da koy dina ko jeexal naan ci nii. non dina naan ci nii la. non ma la. nga duggaat caaro yi. ma dina fi génn barki Serigne Fallou Mbacke bébé jeen du dugaat du dugaat caaro bi fi la yem du dugaat caaro yi barki te combat bi mhm. yàlla moo ñëw ki mbiram mhm. xam nga mhm. destin lu yàlla tuddoon la dañ koy encouragé di félicité mais amateur combat waxoon ba ñoom loolu suñu ginnaaw la ne mbay xam nga lu am solo li am am na ba pare kenn mënu si dara yàlla dañuy ñaan yàlla rek kee combat bi ndam li mu am yàlla na ko jik

ndax dafa ah, fier ci non dama ci sama doom te ku bëgg sama doom ma bëgg la ah, ah. ku ko bañ ma bañ la bu bëree coow it Omaro ku ko laal laal ma barki Serigne Touba Mbacké ah lan moo tax taalibe la te dafa bëgg sama doom waali te ku bëgg sama doom waali ma bëgg la te man billaahi dinaa koo gën koo dooleel gën koo jàppale lan moo tax gën koo jàppale billaahi wallaahi tallaahi ku ko laal yàqu ndax dinaa ko oo dinaa ko jàppale ndax ni mu jàppalee sama doom waali bëgg non gis ñaar rek ne. ah làkk doom doom doom ma doom duma doom mais non non non non làkk doom non nañu rek. ay làkk doom duma fi am. làkk doom. duma am dama ne la. Omaro dafa bëgg sama doom muy kan muy Wally Ballago Seck. le donkin de musique sénégalais empereur bi. empereur la sax waaw yaa ngi dégg. ñuy wax loolu yëpp ay say ñoo ñooy saytaane yi. mais mom ci domam la nek mhm. nekkoon na fële ñëw jóge ñew ci sama dom mhm. fas yéene koo jàppale kon omoro man dama lay jappale mhm. lepp lu ma mën dama la koy jappale xam nga ndax kep ko gis ci aduna nga bëgg wali nga japp wali man xaadim japp na la ngir li nga jappale wali te omoro dina ko jappale de nan nga koy jàppale si baatin wala lu ci lu ci lu kanam rawli bet yaa fi maangi fi barke Serigne Touba Mbacke. su ma waxee nii nag père jël na engagement si euro. non tey dafa lay laaj. Mhm. tey sama doom bëri yi ñoom rek rek sama rakk yi. Mhm. ku leen laal ma. Mhm. ndax ñooy samay doom. ah taaw bi nag taaw bi moom ku ko laal laal ma muy muy Wally Seck mooy taaw bi. njëkk uh-huh. a jur ni njëkk a baax barke Serigne Fallou Mbacke Wally nee woo kenn bolal faramaaren ko jàkkate bu ko piis Omaro ku ko laal yàqu barke Serigne Fallou Mbacke doon mi ngi mel ni Wally Seck barke Serigne Fallou Mbacke jàmm dong la am mbay omoro jamale am jamale yene ñep ah. jamale yene sama dom ku ko ma japp la di ne ji ñaanal jaaga nak mhm. ndax li lepp mom la mhm. jaaga yalla na yàlla guddal sey fan mhm. yàlla biñ séddal dara ci sa ginaaw jaaga gor pire ngi nonu nga and ak sen pap pap sen sur sur papay xalé yi nga tax ne bëggo kenn coon rek nga bëgg jaaga rek ko sax ñaaral bi moy kinne laam lolu moy gor lolu moy gor man gor dama meuna gor damay meuna jox sama lepp gor ab jam la meunta andal dañu waxante dëgg Omaro doxal ba kenn laal la yow. jërëjëf